xibaar yi ak accident bi nga xam ne rek daal dinay am euh, mu duy oto bu Abdoulaye Daoud jàlloo ak Abdoul Mbaw ñoom nag ñoo daal di def ab accident seenub chauffeur ak garde rapproché ñoom ñëpp ñu ngi woon ca biir oto ba oto bi nag dafa daal di fekk benn oto bu gaare mu daw ba daal di koy euh, mbëkk ci noonu la Abdoulaye Daouda Diallo ak Abdoul Mbaw sëfëram ba ci sax gàdd kooram bi daal di am ay gaañu gaañu yu méttee métti bu ñu sukkandikoo eh, ci l'observateur mi ngi amee ci yoonu Touba Mbacké wi ci eh, péage bi lu ni mel nag ba amee daal nañ leen di jël yóbbu leen ca l'hôpital l'observateur mooy wax ba tey ne jamono ji mën nañoo wax ne alhamdulilah y plus de peur que de mal ci diggante Abdoulaye Daouda Diallo Abdoul Mbaw ba ci sax chauffeur bi garde rapproché bi rek moo am ay gaañu gaañu yu xaw a métti waaye jamono ji mën nañu wax ne sant ndax mbir ma mujjee na dal di am euh, jàmm. coowal Sitor nduur coowal viol li ñu ko toppee depuis ba ñuy wàcc tabaski ba léegi Sitor Ndour euh, mu ngi ci guddi gu bët setagul ginnaaw bu ay am doon ñaar liberté provisoire ci digganteem ak xale bi di Ndeye Fatou am fukki at ak juróom-ñaar coow la nag mu mel ni mu ngay bëgg a jël beneen tournée ci wetu euh, Sitor Ndour ndax ginnaaw buy avocat am ñaanee liberté lu jàpp ñaar ba ñett yoon rek ña nga leen koy lankal xale bi nag dafa daal di téye fa mu téew rek ci coowal viol li ba ci sax li nga xam ne dal dina leen koy def comme ay menaces waaye itam lu jëm ah, ci wàllum réglé ko ci suuf kenn bañ kaa yëkk ba doon leen proposé xaalis yooyu yëpp doon na loo xam ne rek jot nañ kaa dal di tënk ci boobu lépp dossier ba tax demande liberté provisoire bi Sitor Ndour ñaanaat ak ay avocat dal dinañu koy rejeté Ousmane Sonko dem na ca Médina Baye ni ki euh, démb ci euh, wàccaayu ko gàmmu gi euh, ginnaaw bi mu demee janook xalif bi ca Médina Baye Kaolack ñu daal di gis ne ànd naag waa coalition Yewwi Askan Wi gën caa fës Khalifa Ababacar Sall Déthié Fall ak délégation boo xam ne rek bu takku la comme ni mu koy defee ñoom ñaar ñu gis Ousmane Sonko ak Ba ci am nataal boo xam ne rek mbégte la ñuy gis ci seen kanam waaye kàddu yu dénkaane yoo xam ne itam jot naa dox ci seen diggante kàddu yu jokkalante ak lu doxa réew mi yooyu yëpp. daal dinañu koy waxtaane ci boobu lépp jotaay accident bi nga xam ne moo amoon ci ñeme nekk ci département bu Diourbel benn euh, usine boo xam ne moom fa explosé woon te ñu doon wax bilan ba kenn nit jot ca gaañu juróom-ñeent am ci gaañu gaañu bilan baa ngay gën di yokku ñetti doomu aadama ñoo ci mujjee ñàkk seen bakkan ci juróom-ñeent yi amoon ay gaañu gaañu mu doon lu doy waar loo xam ne itam kilifa yi am nañu ko tiitaange lool ci usine boobu nga xam ne dafa daal di explosé woon naam bu fekkee def na ay dégâts matériels ni ñi ci ñàkk seen bakkan lim baa ngay gën di yokku. coowal Fatoumata Ndiaye Fouta Tampeek doomam ji mu ngi bëgg nag euh, dem ba jéggi dayoo ñu ñu mel ni ñoom ñaar daal dañoo took ci internet bi euh, ku wax balaa ngay noppi sa moroom jël ci diggante yaay ak doom euh, ku nekk yaa ngay wuññi sa suturaas moroom xastante waaye itam di yàkkante lu mel ni keteme dem ba Fouta Tampi génne beneen doomam wala ay yeneen i doomam rek mujjee na lay na daal di wan sénégalais yi di leen méngale ak caba ci ne caba bu bone moo jël yoonu boppam waaye ay doomam def na lépp lu wat ci ñoom waaye itam teggiwul fa mu tegoon tànkam ci di ñaan yàlla caba ci noonu la caba génnaat dal di koy tontaat defaat yeneen i révélation waaye itam xasaat yam yàkkaat ko lu mel ni ketemee ñu àddu wax ci leneen du ñeel askan wi coow li nga xam ne moom moo am ca jeex nekk ci diggante Pire ak Ngaye ni ki demb démb ba léegi village boobu fu waay sànni mbàttu mu takk li ko waral mu di coow loo xam ne rek ci jàkk la dal di jóge ci benn dëkk boo xam ne rek benn euh, góor gu ñuy wax Bassirou Mbaye moo bëggoon a dal di tabax jàkkaam doon am maçon moom ak njabootam jàkka ja mu commencé woon di tabax ci noonu la fa coow juddoo ndax waa dëkk ba dañ ko doon aaye mu dal di fay tabax jàkka ndax dafa wéetoon lool ci tarixa bi nga xam ne ci la dal di euh, bokk na ci noonu nag la ñu ne ko doo fi tabaxee jàkka ji moom it mu jàpp ne war na faa mën a tabax jàkka ndax kayit yëpp leeroon na ba mu tabaxee jàkka ja ba ñuy dem di ko toj rek ca la coow dal di fay euh, juddu ñu doon ta jàppante ci euh, seen biir ñenn ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di waa dëkk ba génn yor seen i jaasi dal di koy cor euh, jamati ko ba mu mujjee ca ñàkk ba kanam ci saase doom ji nga xam ne moom moo doon dox diggante ñi ko doon faagaagal ak baay bi moom dañoo mujjee rek dal di cor loxo ba ba wad loxo ba dal di des ci noonu la police dal di mujjee ànd ak sapeur pompier ñu dal di ñëw yóbbu néewab Basirou Mbaye waaye jot lu ëpp fukki doomu aadama yoo xam ne jamono ji ñu ngi ci kaso gi waa dëkk ba ñaawlu nañu lool ci li nga xam ne rek moom fa jot dal di xew ci loo xam ne rek coowal diine la ak jàkka wala sax ay tarixa ba tax nag askan fa yeewu am nañu tiit lool ci li nga xam ne moo fa jot a xew waaye sénégalais yëpp dal dinañu koy ñaawlu naam sax ñu ngi laaj ndax mbir mi du dem ba jéggi dayoo ci coow li nga xam ne jot naa am ci village boobu di ngee nekk ci diggante Pire ak ngay mexe procès bu Ousmane Sonko dana amam du am mu mel ni ñi ñaa ngay yëf yi ci dem ba ñenn ñi naan. Ousmane Sonko bu ñu moytuwul bu ñu koy jëli kenn du ko yëg ndax force de défense et de sécurité yi message bi nga xam ne lancé woon nañu ko fi ay fan ci ginnaaw di wax ne lu jëm ci trouble ordre public du ko nangu tax nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di activistes yi wala militants yu passé fi lancé nañu ay message yëkkati seen baat ca kaw di xamle nag ne li xewoon du ñu ko nanguwaat du ñu nangu seenub leader ñu koy pamti pamte di ko yóbbu ci lu dul dëgg mbir bi mbirum complot la te li war a tax ñu bàyyi ba législative yi weesu présidentielle yi di jub si ñu bëgg daal di nag yóbbu Ousmane Sonko duñu ko nangu euh, bu boobaa dina mel ni rek ba ngóor jaayee mbaam man ne nopp ya du dem te réew mi dana tàng dana metti lool loolu moo doon euh, kaddu yi nga xam ne euh, militant yu passé fi dal nañ koy yëkkati ngir dal di koy jagleel nguur gu Sénégal njàpp fecckatu Sidi Diop col ko gi mu sol tax nañu bari di ci yey ci yàbbi ñenn ñooy wax sax ne mujjee nañ kaa teg loxo yooyu yëpp dara amu ci ginnaaw bu ñu ko gisee mu sol benn tubéy bu verte boo xam ne tubéy ja tubéy jigéen la ba noppi dal di def ci ab vidéo partagé ko ci réseaux sociaux yi depuis que mu def lu ni mel nag jàmm amatu ko nit ñaa ngi koy xas dem ba koy méngaleeg borom ñaari tur yi ñu koy fàttali sax vidéo bi nga xam ne jotoon na ko fee def ci jamono màggalu Touba te mu àndoon ci yeneen i nit te ñu ko doon jiiñ ne njàpp mi est-ce du borom ñaari tur yi si la nag daal di ñëw di feccal Sidi Diop njàpp moom mu finne aw turam ñi ñaa ngi koy jaaba jonge naam bu fekkee ay sësam wala ñi ko jegelool génn nañ daal di baalu àq ngir jëf ji nga xam ne njàq njàpp def na ko am na ci yenn kilifa yoo xam ne daal ñaawlu nañu bu baax a baax tëni bi nga xam ne njàpp daal dina koy génnee ci ay justification yi ñu jot a wax nag da tourne tournage boo xam ne rek clip la waaye lu mu ci mënti doon sénégalais yi daal nee nañu bëgguñu dégg loolu booy tourner clip it nga sol loo xam ne ku la seen du la duut baaraamu tuuma ci lu bon procès Kaliphone Sall bi amoon ni ki démb ca tribunal bu Ndakaaru ci coowam digganteem ak Adja Thiaré Diaw euh, depuis ñu tekk loxo Kaliphone Sall alxemes ba la ñu weesu placé ko su mandat de léegi euh, jotoon nañoo dàq àtte bi ñaari yoon ndax le 6 lañ ko waroon euh, amalaat dal di koy dàqaat ba fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre gi ñu nekk avocat yu nag ñu ngi dal di laaj xaalis bu takkoo takku ci Kaliphone Sall mi ci lu jëm ci coups et blessures bu ñu xayma xaalis bi dafay mel ni ci 100 millions yoo xam ne rek Adja Thiaro eh, Thiaré daf koy laaj ndàmpaay ki nga xam ne moom moo di Kaliphone Sall mbokki kalifon nag jamono ji eh, nee ñu yëf yu mi ngi dem bay bëgg a jéggi dayoo ci dàq dàqaat gi nga xam ne rek moom la ñuy def ab ATM ba tax na li nga xam ne moom mooy raam ci ñag bi la jëm te du ñu bàyyi mu dugg fa ba tax ñu dal di findu yëkkati seen kàddu daal di koy eh, jagleel sénégalais yi ne mbirum Kaliphone nekkatul mbirum Adja Thiaré rek waaye am na leneen lu làqatu ci biir loo xam ne lu nit ñi waxul la liw Faramareen teg nañ ko loxo ni ki euh, altine bi weesu ba defeere nañu ko ni ki euh, arxemes li ko waral mu di euh, ay saaga yoo xam ne rek jot na kaa daal di yëkkati teg ko ci famille Papa Thione mu di Ndeye Fatou Diaga Thione Seck ndem ci yàlla Alioune sekk ba ci Waly Seck tax ay plainte yoo xam ne rek daal nañu ko yóbbu ca tribunal bu Ndakaaru ca kanamu procureur ba fa la ñu ko daal di fa seeni até tax liw Faramareen dal dinañu koy defeere instruction lañ ko yóbbu ginnaaw bu ko cybercriminalité euh, tegee loxo tax na nag ñu jàpp ne mën na faa def ay weeri weer yoo xam ne du génn mi ngi ci guddi gu bët setagul waa famille Mareen gi nag kenn gisagu leen benn yoon ñu réagir comme bu fekkee seeni plainte moo fa digal liw Faramareen comme niñ ko waxee woon dootuñu ti di bàyyi kenn rek muy saaga ak di xas ki nga xam ne moom moo di Wally Seck ndax bu ñu fàttalikoo liw Faramareen ci Wally la nekk kon jóge fa daal di dem ci siidi Diop tax nag jamono ji lépp loo xam ne rek lu bon la mi ngi koy yëkkati di ko teg ci derub Wally Seck ak ay famem mbokk yi ñu doon teewlu ci suñ net bi TV Sénégal lii la ñu leen doon dëgtal ci ay xibaar fii la ñu koy ndar keppe doon am mbégte di ànd ak yéen woyu leen di ànd ak ñun ci suñu ay programme abonné activé seeni cloche de notification jàngeen jëf ñu fanaan jaam